lu ma sori ci moom dama ne kër bu mu sëyi day tas te bii yàggatu donc merci beaucoup euh, man ñaar laa am lu ma ci leeral li may leeral mooy lii ñuy wax lu ñu toog nii rek muy suñu xalaatu bopp lu ñu dund la askan wi ko dund ndaw ñu di ko dund jigéen ñi di ko dund béykat di ko dund étudiant di ko dund sàmmkat di ko dund képp ku ci biir Sénégal ba ci waa diaspora ba ci transporteur amul kenn koo xam ne yëgoo naqar sa biir xol ci nguur gu bees bi nekk fi gémmiñ bu wax dëgg wax fen ñu ragal amu fi lu tax ma ne li xew ñëpp la métti xam nga balaa ngaa

peut dissoudre l'Assemblée nationale quand celle-ci fait deux ans. Ça, ce sont ses prérogatives constitutionnelles. Nous aussi, on était prêts à ça parce qu'on est prêts pour aller aux élections. On n'a pas de problème par rapport à ça. Mais le problème qu'on a que le problème, c'est que le président avait un pas C'est lui qui a convoqué la session extraordinaire et c'est lui qui a donné la date du 13 et le 12, il a dissous l'Assemblée nationale. la parole du président de la République du Sénégal ne vaut rien, absolument rien. donc ku ci waroon rek Manele, assemblée nationale constitution du moment président bu avez deux ans nous n'avons pas n'avons loolu problème parce que su ngeen à l'Assemblée nationale suñu bureau yi amul pays, nous nous ñu intégré intégrer yàgg et on va aller aux élections pour gagner mais voici président doit utiliser constitution Sénégal et ay la constitution pour que l'État politique président de la République dafa kaddu président tey président moo parce que moom moo convoqué session extraordinaire moom it moo wax ne le treize la déclaration de politique générale waaye léegi koo xamante ni nii yow yaay président de la république te sa cee dóor sa doom kooku nag wax dëgg yàlla amatul dayoo li nga xamante ni moom la Sénégalais yi di xaar moom lii rek amul leneen